di ko dooree ak euh, opération raxas maanaam sécurisation bi nga xam ni waa lession bu gendarmerie euh, ouest doon nañ ko amal ca Kër Massar lu toll ci ñetti téeméeri takk der ñoom la ñu mobiliser loolu nag euh, daal di ñuy wër quartier yooyu yëpp ngir raxas ko ndax boobu ba léegi wàllu ko ñàkku kaaraange dafa law law goo xam ne nii ma ngay bëgg a jéggi dayoo loolu moom moo tax ci opération boobu teg nañ loxo lu toll ci téeméer juróom fukk ci ay doomi aadama tegaale loxo lu toll ci fukk ak ñaar ci kilo yi yamba nday mati jëng luy tollook téeméeri nit ak juróom fukk ñaar ci ñoom di ay jigéen ak benn kuréelu fukki nit ak ñeent di ay defkatu ñaawteef ak jaaykatu drogue ñooñee la takk deri jàpp ci ay bërëb yu ci mel ni forêt classée bu mbaaw lay tolloo rond point yu station wu kër ma ay defkatu ñaawteef ak jaaykatu drogue ñooñee la takk deri jàpp ci ay bërëb yu ci mel ni forêt classée bu mbaaw lay tollook rond point yu station wu kër Masaar yi unité 5 ba nekkee ca kër Masaar décharge bu mbëbës quartier bi di Daaru Salaam bu Tiwaawoon Pël ak ay baar yoo xamante ni jaaruñu ci yoon yoon ba itam ndaw gendarmerie bu ouest bu keur Massar bi daal di loxo luy tolloog fukki kilo ak ñaar ci yamba bu nga xamanteni sax genn ga dañu ko par détail naka nonu ñetti paaka ak ñaari coupe coupe ñu fekk ko ci katu ñaawte fi ak itam buy tollu ci trois cent francs CFA ko ci njaayum Sinébar lilé nak di jëfi ndawi général Moussa Fall mi nga xamni moy haut commandant de la division bu gendarmerie ak directeur de la justice militaire opération bi nga xamni samedi lañu ko amal fukki fan ak juroom ñent ci weeru join li ñu ci jublu ñu ne mooy aar yi les gox fexe ba def ñaawteef daal di fay jóge ndax kat gox yi ñu lim ci kaw jamono ji bari na lool lu ñu fay nemmeeku jëfi defkatu ñaawteef fii ci fàttali rek ñetti fan ci weeru join gi ñu ne fekk nañu fa benn soxna su tuddoon Dieynaba Traoré ñu rey ko ba noppi daal di koy sànni ca filao ya nekkee ca Tivaouane Peulh Ndey Mati jeng eh, ñak karange gogu gu fess le ndax eh, fan yi ñu genn rek ci dakar ci yenn ko gox lu ci deme ni HLM wala Grand Yoff ñi di jakkatu ñaawteef dañuy songu sax doomi adama di fekk wala di len di agresser lool nak bëccu ndara kam yenn say lañ koy defé ci marché HLM delu wat nañ fa ak eh, koñ ba ñi di commerçant ya ñaaw la lu ñu mel tay sakku ci nguur gi mu jël ci ay ngir ñu indi safara ci ñak karange gogu Angelina Gomis ci marché HLM yenn ci commerçant yi dal di ñu jël sen ngir bañ ñu agressé leen Kéba Mbaye di jaaykatu dra nekk kenn ci ñoom. dëkk bi moom période bi ñu nekk nii man moom. ba ñaaw daaw ba damay teel a wàcc quoi. waaw ah, pour affaire agression yooyu noonu quoi loolu moom dalul xel daal. waaw ba ñaaw du ma génn bu may avant may duggaal damay jënd sama reer lépp yëgal moom quoi. lu soriwul dara ak place am ñii di tatoué nekk ñoom nag mereen nañu lool agresseurs yi. jaay socc sax lew na la yaay borom sa dooleel. dañu bàyyi denc dañ koy fay. xëy dem liggéey moo ëpp avantage yor say jaas yor say paaka di kar doomu aadama képp ku ko defit xam ne def nga xam ne waroo koo ndax soo liggéeyee dugal sa poos doo ñaan kenn. waaw amoon na ko nag waaye man damaa seen oto bay jaar ak ñu doon agressé la doon jàpp. suñu sukkandiku ci defarkatu tatouage bi bañ a askan bi moo war a jóg fajal ko boppam. agresseur pour mu jógee fii kuñ si jàpp si ne police bàyyi ñu rey la kuñ si reyee ñaari agresseur ñett agresseur jeex waaye kuñ si jàpp police ñëw intervention kenn xamul fu muy mujj loolu tax ñu sàcc. ñoom nag ñu daal jaaxle loolu ci bile situation yaay yi a a boo koy def da nga xalaat yàlla ëllëg bàyyi affaire agression tey wuti liggéey nit day am jom boo jaayee mbuus am xaas loo def am xaas ndegam ñun màgget ñoo mën a jaay na xale yi nga xam ne am nañ xaraw gu ñuul kuk te bëgg am alal te noo koy defee agressé nit loolu dafa mett moom agresseur yi moom am bagaay léegi xanaa bu ñu déggee li dinañu wàññi jamono ji ñu toll nag agression yi daal dina lëmbay dëkk bi looloo tax commerçant yi ñu daal di interroger ñoo ngi woo police bi ngir mu dimbali leen te sàmm seen kaaraange